الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من أعدم أعياد الإسلام والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام وهي في حق الفقراء والمساكين بمنزلة حج بيت الله الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله مبكوي نيغلن سانتا بو باخ دي لن نيانال جاما ديكو ساكوسي ديكو ساكوسي ان دي نيان يالنا ني يالا جامال في بركه القران الكريم di leen dénku ragal yàlla ba tey di ko denku suñu bopp diw xam ne nañ ragal yàlla nañ delloo suñu boppa fa yàlla subhanahu wa taala nañ xam ne ne bés dina ñëw lépp loo am ak lépp loo dajale fii nga koy bàyyi te doo yóbbaale tus lu dul ragal yàlla kese ngay yóbbaale su ko defee tey luñ bëgg waxtaanee mooy lu aju si wàllu góor bi maanaa góor jigéen góor a góor waxoon nañ ko fii si ay jotaay yu bëri waaye dafa am li islaam santa loolu wareef la bépp jullit wareef la si yow duhut imam bi kese-kese du ministre bi kese-kese tànka jullit nga am na mission bu la yàlla sas am na li la yàlla sas yeneen bi wax na ko si hadis wér nee ومن رعى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وهو أضعف الإيمان يننتي بنين بنين دمي بنين دق ولا نين جس نياو تيف نين جس لبون من فمن رعى منكم من كبو كبو كنا خمان تنسيين دمنا بنين جس wala nga dégg luy ñaaw ñu ngi koy def boo ko manee génnee sa ab loxo na nga ko génnee boo munee binda si media bi nga binda lii dafa haram defal boo ko defut am nga bakkaar suñ demee bañ ko binda rek nga gis ko rek yenente bi ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne fal yughayyirhu bi yadi na nga ko génne sa loxo nga toog difen islam nga ne lii dafa haram waaye boo ko noppee rek am nga bakkaat boo ko noppee te nga man koo def dafa mel nii ki nga xamante ne dañ ko bugg rey nga mun koo sowe sow soweewuloo ko kooku su deeyee yow yaa ko rey kon ñaaw ñaawteef boobu soo munee binda te yàlla may la xam-xam mën naa am yow xam-xam bi la yàlla may ngay jàng lii moo taxoon mu may la ko ndaxte munoon na laa def muumo ndaxte mu na laa def gumbo kon nag yenent bi nee ne wa man ra raa mun karan fal yughayyirhu bi yadi na nga ko génne sa loxo imma nga def ñaan nga ñaan yàlla boo munee dóor boromam door ko mu bàyyi ko ku koy def door ko boo ko munta door mooy loxo bi boo ko munta dóor na nga koy ñaanal yal na ko yàlla génne si lii boo munut def lii yépp mu ne bi maanaa na na nga tongoo borom na nga bàyyi borom si ñaawteefam léegi nag ku déggul si ñun lu ñoo jéem a def nii mooy góor ak góor di sëy loolu yaakaar naa ne wax naa ko fii ay jotaay yu bëri waxtaane naa ko fii ay xutba yu bëri su ko defee nag tànka dañ ko ekkatiwaat rek ñun tam lu ñu war mooy ñu génnaat wax lu si yàlla sant de gis ngeen góor ak góor wallahi al bu fi duggee rek léegi tey ga léegi tey yàlla léegi tey bi maana yàlla tasaaree dëkk bi yëpp parce que xewoon na gis nga histoire yi luutu alayhi salaam luutu mooy homosexuel luutu mooy góor a góor di sëy góor ak góor di sëy story boobu ñëw na si alquranul karim ñëw na si alquranul karim si eed saar juróom ñetti saar story bi ñëw na si alquranul karim باتي لوط لوط عليه السلام نيونا سي القران الكريم 27 تايمز دغلو البوباخ يومي ام خل يننتي بي كيغا خامتاني سي موم لا ني واتي القران الكريم 4 تايمز لاكو يالا تود سي القران الكريم دغ نين ما محمد صلى الله عليه وسلم جن سي مينديف موي موي كيغا خامتاني موم لا يالا واتي القران سي كوام نينتي يون كسه كسه كسه la turam ñëw si alquranul karim luutu alayhi salaam turam ñëw na si alquran twenty seven times kon képp ku bugg a yaa ngay bi maanaa borom képp ku bugg a saxal lii yaa ngi yam sa borom yàllaa ko tere te lii suñ koy def bi maanaa lu dafay teg bi day dem ba nga xamante ne aduna bi kenn du jureti waaye góor góor ak góor bu ñoo sëy bu yàggee mbindeef bi dañoo jeex ndax te yàlla moo moom mbindeefam yàlla moo moom yàlla moom jaamam yi kon su ko defee ñu koy def dañ bugg a weddi yàlla lu yàlla dogal ba pare dañ ko bugg a dog li nga xamante ne yàlla dogal na ko mooy lan góor ak góor góor ak jigéen di sëy di am ay njaboot doom di fa sosu aduna bi di gën a yaatu loolu lañ bugg a màbba loolu nag képp ki nga xamante ne jullit nga saxal nga ko borom ab yéefér la borom ab yéefér la ak koomante ko doon ñu ne képp ki nga xamante ne jéem nga saxal mbiri góor ak góor di sëy nga koy jéem a daganal borom fa huwa kaafirun li annahu qad ankara waxya allah borom yéefér la li ko def yéefér ndax borom defa weddu baat dafa weddi baati yàlla te képp ku weddi kàddu yalla borom yéefér nga ñu ne wa in saama wa salla même borom buy borom bu fekkee muy julli muy oor borom yéefér la képp ki nga xamante ne am nga am nga sañ-sañ wala am nga pexe wala am nga ngom-ngom wala am nga fit di jéem a daganal góor ak góor di sey di wax ne am na ñuy wax ne fa ala kulli bi maana kullu insanin lahu xurriya am na ñuy wax ne nit ku nekk nekk am nga sa indépendance sa bopp lu la ne nga def am na ñu koy wax ne déedéet amuloo sa indépendance boppa yàlla def la bind pour nga koy jaamu amul nga aljanna keroog ngay am indépendance waaye am nga indépendant defal lu la ne waxal lu ne du dégg yàlla bindew ñu fii pour ñu def lu ñu neex pour ñu wax lu ñu neex yàlla mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni su te yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na toogoon na benn jamono moom sallallahu alayhi wa mu toog rek kanamam bi ceeñ ronkoñam dal di tuuru suñ yaay Aysa nee ne ko yaa rasulallah maa yuhzinuka yenente bi lu xew lan ngay métti loo nii lu xew sa kanam baa ngi ceeñ lu xew yenente bu ko wallahi shay'un taxawwaftuhu ala ummati an yacmaluu min baadi amala qawmi luut yenente bi mu yaay Aysa man li ma teg naxar li ma teg coono li nga xamante ne def ma métti li nga xamante ne eh, def ma tiital mooy sama xeet bi foo dem mujjanten jamono foo dem danga fay gis ay jumaa ay jama ay daara di fa jàngee alquran bu sella waaye mujjanten jamono li ma gën a ragal dañoo dem ba di def ñaawteef yooya ñaawteef yi nga xamante ne gaa yi luñ doon def gis ngeen sallallahu alayhi wa toogoon na mu ne day am jamono ragal na si xeetam bi ki nga xamante ne jàngale na lépp wax na alquran leeral na lu ne yenente bi amul lu mu leeralul waaye mu ne mujjantan jamana innama sheyun taxawaftuhu ala ummati an yaamalu amala qawmi luutin min baadi mu ne li ma gën a li ma gën a métti li ma gën a tiit li gën a tiital mooy mujjantan jamano ragal naa sama xeet bi nga gis ku tudda Muhammad Ibrahima Isa Musa façon ñii di dem di def homosexuel tey ñu koy def ñan lañ ay séeréer kese tey ñuy def li ñu bari Muhammad la Moussa la Ousmane la ñoom ñooy dem di def ñaawte façon yii tey yeneen te bi toogaan na waxal si beneen hadis mu ne laa taqumu saatu hatta turdaxa ru'uusi aqwaamin bil kawaakibi bi istixlaalihim amala qawmi luut parce que yeneen bi nee aduna bi bés penku du taxaw bés du taxaw ba gis ay borom alel ay borom garaat di jéem a daganal déglu leen bu baax sallallahu alayhi wa sallam yàlla won na ko lépp mu ne aduna bi du jeex ba nga gis borom nombu tànka borom ay alal di jéem a daganal ngiri góor a góor di sëy est-ce que amul tey yenent bi waxoon na waaye hadis bi am na beneen anaa ñu ne loolu si demee ba am yàlla day sotti ay bidiw yuy ñëw si bopp nit ñi di leen xalak ni yàlla alake woon bi maanaa gaay luutu yi léegi ñu dem si story luutu alayhi salaam gis nga luutu mu ngi juddoo si Baabel tamit luutu bàyyi luutu ak Ibrahima alayhi salaam ñoom ñaar ñoo bokk benn baay bi maana luutu ba Ibrahima baay la si luut bàyyi luutu ak Ibrahima ñoom ñaar ñoo bokk benn baay yenenti yàlla Ibrahima ak yenenti yàlla luutu bàyyi luutu ak Ibrahima ñoo bokkoo ndey ak baay su ko defee bàyyi luutu dafa teel a génn aduna. Ibrahima nag yar ko moo tax ne ñu ne luutu tur googu lan moo waral luutu luutu alayhi salaam dafa jege woon Ibrahima torop dañ ko tuddee luutu luutu baat boobu ci arab luutu bi maanaa mooy bi maanaa kolu laata chey bi maanaa kol bi maanaa taf ko luutu dafa taf woon Ibrahima torop def ko tafoon torop dañ ko tuddee luutu moo tax ne am nañu wax ne luutu boobu kenn warul ko tuddee doomam déedéet tur googu tur gu baax la tur googu yeneen ti yàlla gis nga ku tudda Ibrahima gis nga ku tudda Nuuhu gis nga ku tudda Idris gis nga ku tudda Muusa waaye kenn gisul ku tudda Luut Luutu ñu bari ñu ngay ñaawal kàddu gi waaye kàddu gi bonut ñu ko doon def rek ñu askane ko su luutu bi maana ñu jël kàddu googu bépp képp kuy def jëf jooju rek ñu tudde la luut waaye képp ku am doom bu góor su la neexee tuddee ko luut tur bu baax la su ko defee moom luutu bu mu juddee si baabeel yàlla def nag mu gàddaay dem bi maana fu tudda sadum sadum nag mu ngi diggante diggante Palestine ak ak Ordan dëkk bu luutu nekkoon ba yàlla alak dëkk googu mu ngi diggante Palestine ak Ordon ba tey soo fa da ngay gis mandarka bi dëkk bobu ken ken ken bi maana ken dekatul fofu parce que ni yàlla dafa halak dëkk bi su ko defee nag lu luutu alayhi salam bu magge ci dëkk bobu dëkk bi yàlla def len bew yàlla def len mayoon alal bu bëri may len bépp façon xéti bi maana taranga yàlla may len alal ju bëri beñu bew ñu bew nak ñu def ay ñaaw ñaawteef yu bon ñuy moy yàlla def di def ay shirku billahi nu luutu alayhi salaam di leen nag woo fa yàlla subhaanahu wa taala bàyyi leen seen ñaawtef yii gars yi ñu gën a saaraan rek si seen ñaawtef yooyu waaye ba yàgg nag iblis ñu ne cosaan bi luut lii mooy homo bi maanaa homosexuel ku ko njëkk a def li tax ñu def ko ñu ne iblis moo soppaleku xale bu góor bu rafet iblis moo dem soppaleku xale bu góor bu rafet gars yi gis ko nag dal di ko yéemu iblis na dugal seen xol yi nañ sey ak moom nii lañ nekkee di sey ak moom affaire si ñu ngi si am feeling ñu ngi si am ay bànneex di si am ay banneex ñuy sey ak xale googu di si am ay banneex ba yàgga ñu koy defante ñoomi noonu ñii ñu ne loolu moo waral lii mu xew kon xam nga ne lii képp ku koy def na nga xam ne iblis mooy sa iblis mooy sa sëriñ waaye itam ñi tam ñu ne ñoom dañ ko daan def rek si seen soxna yi dañ ko doon commencé di ko def di ko def si seen soxna yi ba yëgg rek ñoom ñu koy defante waaye nag yenent yàlla luutu yàlla dal di ko oo ñu ne ko luutu na nga sa nit ñi nañ bàyyi lii bu ñu bàyyi lii dinaa leen dinaa dinaa leen bombardé ñoom ñëpp luutu alayhi salaam yàlla mu ne ko wa luutan id qaala li qawmihi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 luutu defa yéemu moo tax ne Umar ibnul Xattaab nee ne bu yàlla waxutoon mbiri góor ak góor si alquran moom xelam du xelaat ne góor dina tooy ba jàkkarloo sa morom góor di ko juutal lan nga fay am du dara Umar ibnul Xattaab nee ne bu fekkente ne yàlla toon mbiri luutu luutu story boobu ñëwtoon si alquran du doon gom ponkalam góor ponkali góor nga juutal sa mbokkam góor wala yow góor ñàkk fayda yow góor nga nangu sa moromi góor juutal la subhanallah moo tax ne am na fi ngay yegg si yéeféer même xaj moom moo lay am na fi ngay toll am na fi ngay toll am na degré bi ngay toll si wàllu mooy yàlla wallahi même mbaam bee moo lay ëpp xel yàlla waxoon na ko yàlla waxoon na si ñoom yéeféer yi mu ne a taxsabu anna aktharahum yasma'uuna aw yaaqiluun yàlla waxoon na yenent bi est-ce que yaakaar nga ñoom abu jahli ñii li ngay woote li ngay tere est-ce que yaakaar naa ne est-ce nga ñoom dañ koy dégg dégguñ ko de gis nga ñii yàlla mu ne ñii même ay bahima ñoom ñoo leen tane bahima sa ñoom ñoo tane nit ki dafay am fi ngay toll même mbaam moom moo lay tane doo musa dem ba nga gis mbaami góor di toppa mbaami góor abadan doo mus dem ba nga gis xaji góor di topp xaji xaji góor doo ko mus a gis doo mus gis ba ak lu mu nekk kaccoor doo mus doo mus a gis doo mus gis béy bu góor di toppa béy bu góor abadan kon nag ñoom ñi koy def mbaam yee béy yee xar yi ñoo leen ëpp te yàlla waxoon na ko yàlla mu ne yeneen bi gis nga yeefar yi ñi li nga wax de dégguñ ko ndaxte même bahima yi ñoo leen ëpp xel am na yàlla mu ne e, bal bal hum adallu sabilan ñii ñoo gën a réer sax mbaam yi xaj yi béy yi aay baa ngi noonu luutu dafa oo nitam yi mu ne leen ya xaw e yéen samay nit ñi ala tattaquuna yéen est ce que doo leen ragal seen seen borom doo leen ragal yàlla ngeen gëm yàlla ngeen bàyyi li ngeen a def nii ataatuuna rijaala shahwatan yéen da nga jël seen da nga nay jël seen bànneex alquran moo ko nettali da nga nay jël seen bànneex seen fiilin di ko jox di ko jox góor min dooni nisa yàlla bindal leen fi jigéen yu jekk yi jigéen yu rafet yii tey si jamono bii jigéen yaa ngi rafet jigéen yaa ngi jekk yàlla bindal leen jigéen yi pour ngi leen pour ngeen di bànneexlu si jigéen yi yéen ngeen jël jigéen yi bàyyi leen fee tànn góor yi wallahi du wallahi du du ngiri du kese kese kese luutu mu ne leen innakum qawmun musrifuna yéen da ngeen oppal seen bakkaar bii nii da def bakkaar bi nga xamante dafa jéggi dayoo luutu mu ne leen tuub leen fa yàlla waaye xam nga lun tontu luutu fa ma kaana jawaaba qawmi illa an qaalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unaasun yasrahun ñu ne ñu ne ñu ne daal ñu ñun ñu koy def lutu sulanee nga def ko ak ñun soo soo paree léegi léegi ñu jël fii benn góor jox la ko nga def ko nga seeg seeg moom soo munul nga ne teg nga noppi soo munul ñu génne la fi de luutu alayhi salaam bim leen teree lii ñu ne luutu bàyyi foos dañ koy def te soo ñu ko buggee tere dañ lay génne fi dëkk bi ñun ñoo ko moom ñun ñoo la ëpp doole ñoo la ëpp gànnaay ñoo la pale dañ koy nangu bàyyi en force dañ koy def te su soo ko defut ñun duñ koy def ñun dañ koy def tamit soo bari lee wax ñu génn la fi kon yow bu fekkente ne tonga ngay teree lii sa mbokki julli toog di wax imaam dafa bari wax imaam dafay def lii bàyyi rek loolu du dara tànka luutu alayhi salaam am na beneen aaye kadabat qawmu luutin il mursalin luutu dafa wax ñu ne ko da ngay fen luutu dafa wax ba pare kaddabat qawmu luutu lil mursalin luutu bu mu toogee di wax na ngeen ragal seen seen borom nangeen ngeen bàyyi ñaawte fi den toog di nga wax di wax ne luutu yow da ngay fen li ngay def li li ñu tere nii nii ñun am nañ téeméeri yàlla yu teg suñ benn yàlla terewuñ ñu yi yow li ngay wax ne dangay ngay fen kon ngeen bàyyi xel fii gis nga ñu toogoon dem ba di saaga góor yàlla yi ba tey rek ñoom rek ñoom ñooy toog di saaga nit yàlla képp ku mën a saaga sa imaam saaga nga diine islaam soo saagee benn minista dafa mel ni saaga nga gouvernement bi yëpp ndax du dégg kon nag koo boo demee ba ngay saaga imaam na nga xam ne ne yow boo dundoon ak yeneen ti yàlla da koy saaga waaye saagakat yi nañ continuer di saaga. yow mii leeral bul dellu gannaaw si leeral leeral yàllaa la ko santa na ngay leeral kon nag gaay luutu yi nii lan toppee di def ñaawteef boobu ba yàlla subhaanahu wa taala ebal jibril ak mboolo bu takku ak malayka yàlla ebal jibril mu soppale ko ay nit ñu nekkat ay nit yu góoru yu rafet te luutu alayhi salaam amoon na jabar ju bon fii ngay jàngee ne lépp loo baax baax baax man nga am jabar bu bon jabar bu bon am ko fi tekkiwul ne yow de nga bon déedéet gis nga luutu alayhi salaam lum ne ko nit yàlla yëpp yëpp yëpp jabaram def ko daan def jabaram def doon def jigéen ak jigéen lesbienne ah jabaram def ko daan def ko def léegi nag luutu su amee ay gan jabar bi day génn ootee bu fekkente ne gan bi góor la jabar bi day génn si dëkk bi yëpp mu ne leen de eh, am nañ fi ay boy yu rafet mu dem mu ootee paako yi yëpp même paako yi tey non paako yi tey ñoo gën ñooña téeméeri yoon parce que paako yi luñ paako paako paako yaakaaruma dañoo def loolu déedéet duñ ko def ala kulli haalin jigéen bi day génn oote bépp oote góor yi bu fekkente ne luutu am na ay gani góor léegi nag jibril bu mu ñëwee mu soppale ku ak góor moom ak malayka yu mu àndal yépp ñu soppaleku ab ay ay ay góor léegi nag jigéen bi dal di leen oo ñoom ñëpp ñu ñëw di téye malayka yi di leen foon di leen jéem a cokkaas luutu alayhi salaam rus luutu mu ne leen bàyyi leen sama gan yi même même ngeen ñëw sey ak samay doom yu jigéen yi ñoo ma gënal moo ma gënal ngeen di sëy ak sama gan yi jamono boobu nag fekkee luutu xamul ne ñii ab malayka lañ dégg jibril mu ne ko kuulal booy tey kuulal jibril mu ne luutu kuulal dalal man maay jibril ñii duñ mun si ñun dara yàllaa ma ebal pour pour yàlla mu alak dëkk bi yàllaa ma ebal pour mu alag dëkk bi kon nag dalal luutu mu ne ko kon nag def ko léegi-léegi def ko léegi léegi sonn naa ñaawteef bi sonn naa jibril mu ne ko bàyyi rek ba suba alaysa subhu bi qaribin jibril mu ne ko suba jege na torop bàyyi ba suba suba rek suba teel guddi bu jotee rek ngeen fexe yow ak sa nit ñi nga xamante ne duñ koy def ñi la gom ngeen génn dëkk bi waaye luuti mu ngi yàkkamti guddi jot guddi bu jotee rek yàlla def ndeysaan luutu génn dëkk bi moom ak ñi gom ñi nga xamante ne duñ daan def ñaawteef boobu ñu génn génn dëkk bi ñu génn bañ sori jibril delluwaat si meloom bu meloon dëkk bi yëpp sadum yëpp la jël dëkk bi yëpp la jël ngir seen ñaawteef boobu lan la jibril def dëkk boobu dafa jël dëkk bi yëpp bi maanaa gas jël ay mbaggam xam nga jibril جبريل ñu ne si melokaana jibril bi xejul si suuf bi déedéet moo tax ne même bu yàlla bëggee taxañ suuf bi yàlla day ebal jibril taxane suuf bi jibril bu dégaatee suuf bi rek day toon suuf bi day toon nekkaar comme ay dak comme ay dank jibril alayhi jibrilu alayhi salaam léegi nag yàlla mu ne ko yëkkatil suuf bi nga dal di ko jibril non la ci dëkk boobu yeb jël laafam yi dugal ko ba si juróomi ñaareelu suuf bi ba si juróomi ñaareelu suuf suuf boobu yàlla defa jëppi suuf bi yëpp yàlla jëppi suuf bi bañ suuf bi ngir ñaawteef buñ fa def kon nag buñ moytuwul di ko def fii wallahi ñaawteef boobu li yàlla defoon ñale suñ moytuwul dañ bi maanaa def koy def fii yàlla nañu yàlla musa si loolu su ko defee nag jibril noon la toonee dëkk bi ekkati dëkk bi ba si asmaan si mu daldi ko toon yàlla mu ne waja fala mimma falamma jaa amruna jaalna aaliyaha saafilaha yàlla mu ne bu ndogalam ñëwee dafa jël dëkk bi toon ko dal di ko olbati lu nekkoon si kaw ñu nekkoon si kaw ñu nekkaat si suuf tamit yemul foofu de yemul foofu de mu ne wa jaalna aaliyaha saafilaha wa amtarna alayha hijaratan min sijilin manduud yàlla mu ne yemul foofu damay ebal ay malayka ñuy génne ay doj di ko génne si safara bu tuddee si jiil ah doj yi dañu laa dañoo tàngal doj yi ba ñu tàng ba ñu xonk cuur yàlla ebal malayka yi nañ jël doj yooyu sànni ko si dëkk boobu noonu lañ tawee dëkk bi daf doon taw ay doj doj yi nga xamante ne safara lan noonu la yàlla alakee dëkk boobu ba ñu fa dëkkoon ñi nga xamante ne dañ demoon tukki ñoom ñëpp yee xeeri dëj yooyu def leen dal ñu suux demaat fekk ji seen mbokk yu kon ala haalin lii ñaawteef bii képp ku koy def wallahi da ngay am mbugal fii dangay am mbugal fele képp ku ko mën a génne génnewuloo ko si ñoom nga bokk waxuma la nag jé di jéem di di ko jéem a daganaal képp ki ko gis manuloo bi anaa defuloo si jeego te man nga am doole pour def si jeego defuloo si dara wallahi yow ak ñoom yëpp yéen a am waxuma la nag ki koy jéem a daganaal ki koy jéem a daganal moom la mom ak kom man ga doon la li du wahi sàmba du wahi demba yàlla subhanahu wa taala moko santane be ba ñu ne ku koy def yenent bi neene idha waja wa man raaytumuhu ya'malu amala qamar wa man raaytumuhu ya'malu amala lut faqtulul fa'il wal maf'ul bu ngeen deme be ngeen gis ku koy def ku koy def ak ku ko def yeb na ngeen koy ray ku ko def ak koy def yëpp dañ ko war a rey léegi nag nuñ ko war a reyee loolu la ñuy werante ñi ñu ne nañ ko làkk ñi ñu ne déedéet nañ ko sànni ab doj ñi ñu ne déedéet nañ ko mbugal comme ni ku def njaalo rek nuñ ko mbugalee rek nañ ko rey waaye ala kulli haalin dañ ko war a rey su ko defee wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin <coughs>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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ذلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده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 اللهم انت السلام ومنك السلام عليك يا رب السلام علينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة فلا نزل نصرا تبارك ربنا وبارك يا اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغفر وفاتح لما أغفر ولا هادي ما صادق المستقبل على آله حتى يجعل إلى اللهم صل على سيدنا محمد آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين Allah